bismillah mbokku internet yi dalee nag jàmm ci Tactic TV ñu ñëw diktal leen ay xibaar yu jëm ci mbirum Ahiba Thiam te wax leen ana ñan la yoon jot a loxo Tactic TV ma ba xam la yoon teg loxo ci mbirum Ahiba Thiam bi nga xamante ne dañu ko fekk ci ab appartement ci Almadies mu daal di faatu ñoom ñi nga xamante ne fi mu toll nii enquêteur yi war nañu leen nombre ñu ngi ci fukk ba fukk ak benn na ci ñoom ndaw yooyu le kile di Dame Amar nekk doom ci milliardaire ba woon di Amath Amar te njëlbeen nga da doon jéem a daw waaye mujjantal ka jot na jébal boppam keneen ci ñoom di Jaja Taal mi nga xamante ne daanaka ku ñu xam la ndax ànd gu muy ànd ak lu bari ci ñu siiw lool lu ci mel ni ay mannequin waaye yemul foofu ka ca topp mu ngi wuyoo ci turu Lotiba di doom ci président bu fédération sénégalaise de tir nekk itam boromu këru rakku Aïda Coulibaly Ndour waaye ci xibaar yi ñu jotandi ba tey ci loolu mooy ne moom kat fu mu toll nii boobule sëy mi ngi jëm ci

tax nga toowee ci mbir mi ak fi l'enquête bi toll mooy ne jamono jile way takk der ak enquêteurs yi ngi wër ab jaaykatu dorog bu taq ci mbir mi ak beneen waay bu ñuy woowee neex dinañ dikkaat ak yéen ci lu yàggul dara ngir indil leen yeneen xibaar ci fu mbir mi toll jërë ngeen jëf. immeuble bi ñu tuddee immeuble garden immeuble boobu nag ak appartement meublé yooyu ñu doon loué ki ko doon loué doonoon doom ci benn milliardaire buy yëngu ci wàllu pétrole du kenn ku dul Rougui Diaw Rougui di doom ci Baba jaw moom moom immeuble boobu appartement meublé yi nekkoon foofu kii di jet setteuse bi di Iba Thiam ñàkkee bakkanam ci lu jëm ci wàllu overdose mais jamono ji ñuy wax ak yéen moom moo fa ne woon nekk fa ak ay xaritam ak yeneen i xale yoo xamante ni ay doomu kilifa lañu ci réew mi tey yooyu ñuy wax ak ak doomu milliardaire yooyu nekkoon ci apartement bi di jëfandikoo li leen neex ba kii di Iba Thiam di jërsëteuse faatu ci seen kanam ginnaaw bu mu defee benn overdose nee nañu sax mu ngi doon wàccu deret balaa ñu koy jël di ko rawale ci benn clinique ndànk ba foofu la ñàkkee ba kanam immeuble boobu nag mu nekkoon te tudd immeuble garden nekk ci Almadi kooku di rugi Diaw di doom ci Baba jaw milliardaire bi moo ko moom moo leen ko doon luwe jàppale ni nag kii di Dame Amar muy goro ci waykat bu mag ci réew mi di Ndour maanaam Dame Amar di jëkkëru doomu Youssou Ndour moom mu ngi woon foofu ca appartement jooju Iba Thiam ñàkkee bakkanam Dame amaar nag jamono ji ñuy wax ak yéen gendarmerie Ngor teg na ko loxo loolu moo tax enquête bi mi ngi wéy di dem waaye du Dame amaar kese fa nekkoon ndaxte gis nañ fa ñeneen ñoo xamante ni ñi ngi fa woon ku ci mel ni jaajaataal Taal Jaaja nag su ngeen ko déggee maanaam tur boobu seen xel dina am ci lu mu dem bare na lu muy ànd ak ay mannequin ku ci mel ni Adja ba Mati Mbodj ba muy gaañu sax nañ ko ci di Choupette yaakaar naa ni doon liggéey foofu ci benn boîte ci Almadi ñu xam ko lool moom it mi ngi ci woon ak kooku ñuy naan luuti baa ñoom ñëpp ñu ngi woon foofu toog ñu xam ko lool ci Sénégal lu tax ñu tudd ko ci deewum kii di Iba Thiam muy benn jet-setteuse bi faatu ci benn appartement meublé ci overdose Rougui Diaw nag muy doom ci milliardaire boobu di Baba jaw moom moom moom appartement meublé yooyu nekk ci immeuble garden appartement meublé yooyu nag la doon loué moo ko woon nag ñii di ñoom Iba ak ñi mu àndaloon ci appartement ba Rougui Diaw nag donte tuuram feeñ na ci waaye taxew ci laalew ci yëgu ko nekkul woon foofu sax ba Iba Thiam di faatu danam ñàkk bakkanam ci wàllu overdose moom appartement yi la moom di ko loué Rougui jaw mii nag doom la ci milliardaire boobu di baaba jaw jamono ji ñuy wax ak yéen nag pour besoin wu enquête bi mi ngi foofu ci gendarmerie conk moom it ñu téye waaye Rougui jaw moom fekkewul bi Iba Thiam di gaañu appartement meublé yi la moom doon ko ñooñu di Iba Thiam di Dame Amar di euh, Diadia Tall di Louti Ba ak Poupette ñoom ñooñu ñoo nekkoon ci apartement meublé boobu Rougui Diaw loué moom nag nekk fa woon moom kese dafa am ñum fa nekkaloon muy kii di daam Amar doon doom ci feu Ahmed Amar moom NMA Sanders ak euh, Diadia Tall ñi xam ko lool ci wàllu almadi mu doon liggéey foofu ci hôtel Pullman ak kii di Poupette doon liggéey ci benn boîte de nuy foofu ak beneen jet-setteur bu tudd Louti Ba jamono ji nag ñuy ginnaaw bi gendarmerie Ngor defee démb première réquisition yi ñoom ñëpp jàpp nañ leen jamono ji kii di Dame Amar mi ngi foofu ci gendarmerie Thionk waaye moom kese nekku fa magam boobu di Papi Amar tamit jàppale nañ ko ndaxte bi yëf yi amee daam dafa woowoon magam boobu di Papi Amar ñu remonté appel yi kii di jaajaataal tamit di liggéey hôtel Pullman moom it jàpp nañ ko mi ngi foofu ci gendarmerie Thionk ak kii di Poupette doon liggéey ci benn boîte de nuit mu jote woon ak lool ci décès Mati Mbodj moom it jàpp nañ ko ak kii ngeen di gis ci photo bi di Louti Ba moom it ñoom ñëpp ñu ngi foofu ci gendarmerie Thiong. Euh, c'est c'est c'est très sérieux noonu la ca Hiba Thiam euh, vidéo de son sang ba ñàkk ci bakkanam. jamono ji ñu toll nag comme la est en instruction xëy na duñ ci mën a euh, sori duñu mën a xam ndax drogue la am ndax autopsie bi révélé bu ko mais daal de source sûre ñoo ñaafan jàpp nañ ne xale yi dañ doon jëfandikoo drogue Ahmed ci jour boobu ca ca ca appartement ba. te mm-hmm. appartement ba bu nekk fële ca Almadela bu nga xamante ni euh, doomu Baba Diaw boobu la di Rudy Diaw moom moo ko moom. Mm-hmm. elle fait dans la location des des appartements. Mm-hmm. foofu ca immeuble Garden. mais dañoo wax ne ci xibaar moom euh, rugi moomu sax moom moo ko yóbbu hôpital ba mu tàmbalee wàccu. waaw nekk fa woon. Euh, mhm. ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekkoon. Mhm. dañ ci lim ki nga xamante ne moom moo di euh, Dame mhm. nekk doom ci Feu Ahmed Amar nekk euh, jëkkëru Ndeye na Ndour bu Youssou Ndour. mën nañ ci lim benn gérante boîte bu mag bu nekk fi ci Dakar bu wuyoo ci turu Fatoumata Gardi plus connu sous le nom de Choupette mën nañ ci lim Habib Fatou Thiam ñàkk fi bakkanam xibaar. lim ci itam ay ñaar ba ñetti xale yu nga xamante ni boo leen gisee di nga xam ni elles sont euh, très connues dans le monde des paillettes et des lumières c'est-à-dire ci xale yi génn bu baax guddi almadi moom mm-hmm. nag bi xale bi commencé wàcc deret dañoo da di daw bàyyi ko fa mm-hmm. woo ka leen luwe appartement bi di xibaar jàmm ne ko na daw ñëw ndax euh, ki leen luwe appartement bi di euh, Rogi Diaw plutôt nekkoon na daal ñëw parce que am na lu nga xamante ni euh, xew na ca euh, këram. Mhm. bi mu ñëwee nag la fekk xale bi sonn lool mu daal di woo sapeur sapeur évacué ko ci benn clinique privée de la place. Mhm. laata muy woo gendarmerie Ngor ngeen ñu ñëw def euh, seen seen constat. Mhm. donc nii la nii la demee. donc loolu lañ ci mën a jàpp pour l' instant. dégg pour l' instant loolu ci mën a jàpp. waaw pour l'instant daal loolu lañ ci loolu lañ ci mën a jàpp ñu ngi ciy lim nag yeneen doomu euh, kilifa yu ne fii ci réew mi. Mhm. waaye euh, amaguñu ci amaguñu ci lu ñu leer. merci waay merci waay soxna si merci beaucoup.